asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baal xaq te di ko sàkku ci yéen ñu fas yéene ànd ak yéen ci diiru weeru koor ci naafile yi ci guddi gu nekk di ci téere sëriñ Sohaybu bu bu tudd Qurratul Ayni di dimbali ko kàttanul sunu borom subhaanahu wa taala njëkk loolu ñuy sàkku ci yéen képp koo xam ne abonné goo ci seen youtube bi da Aynul Hayat nga daal di gaaw daal di ci abonné ngir bu ñu dugalee naafile yi ngeen mën cee jot ak mbooleem yi am njëriñ yi fi am ci bëccëg weer wi yëpp ngeen mën cee jot naafile guddi fukkeel gi ak ñett nag ñaari rakka la rakka bu ci ne fatiha benn yoon ak qul huwa allahu ahad ba saar bi jeex juróomi yoon sëriñ bi nee na julli googu de ko ko def des na ko ca tabaxal njënd lu rëy dana am juróom-ñaari néeg yoo xam ne lépp wurus lay doon néeg bu ci ne dana am junniy lal lal bu ci ne soxna dana ca nekk te dees na ko ci bindal tuyaabay ku woor ñaar fukki at ak ku julli junniy rakka bu ko defee ko ñu ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu nanguñu sunu koor nanguñu sunuy jaam yàlla ci barkab Seexul Xadiim jërë ngeen jëf wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu فأخرج به a الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا